Euh, beneen bi euh, maa ngi ko doon wax sànq damay remercier euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy le corps médical de l'hôpital militaire de Ouakam man dama am une une longue histoire avec l'IA mu nekkoon IHO à à l'époque léegi ñu ngi ko tuddee HMO dama ba ma nekkee xale man sama waajur militaire la woon ba ma nekkee xale ba ni ma màggee foofu laa doon foofu laay fajoo c'est de instant la sax Euh, suñu borom suturaal na ma mun naa dem ci structure hospitalière bu ma neex mais man su ma feebaree sama yaram naqari euh, pour éviter rang bi sax damay toog ba guddi ma dem hôpital IHO ñu jox ma des des des des soins et donc psychologiquement je me sens en sécurité euh, dans cette dans cet hôpital là et c'est dans cet hôpital là que j'ai été prise en en charge et très bien prise en charge Mm, may remercier le person tout le personnel médical euh, bi fa bi fa nekk pour leur assistance leur soutien euh, mais di remercier particulièrement euh, la directrice de de l'hôpital euh, madame Yuandi Nouane euh, mu nekk une dame boo xam ne euh, j'ai eu j'ai ressenti avant même que ñuy xamante beaucoup d'admiration pour elle pour ce qu'elle représente pour ce qu'elle pour ce qu'elle a fait il y a eu euh, ce, ce, ce miracle cet exploit euh, sur la première euh, greffe bi ñu réalisé te mu nekk l'œuvre du corps médical de cet hôpital waaye di remercier tamit et, et dans la vie on on, on fait de, de de de très belles rencontres di di di remercier aussi le, le, le professeur Diao ki qui qui qui a fait le suivi euh, yemul rek ci suivi médical il m'a encadré il m'a accompagné euh, ba ma ba ma ba ma génn ci li ma nekk ni et parfois euh, on a le bonheur aussi Sénégal nga jékki-jékki nga nekk ci benn expérience tu te rends compte que euh, Sénégal il y des gens yoo xam ne ils peuvent nous pousser à y à y croire da leen di rencontrer fépp parfois euh, au cours de la vie nga rencontrer nit koo xam ne euh, ay nit yoo xam ne ay xeetu sénégalais yoo xam ne euh, fonk nañu seen métier bëgg nañu seen métier ils sont passionnés pour pour pour ce qu'ils font et puis mu nekk un un hôpital boo xam ne avec un excellent plateau médical man je suis toujours surprise des transformations des mutations qu'il y a dans cette dans cet hôpital comme quoi li ñuy jéggaani bitim réew bu nawloo fii ci suñu suñu biir dëkk euh, mën nañu ko am parce que on a le personnel qualifié on a les plus grands médecins dans ce pays là et dans tous les domaines euh, et donc mu nekk une invite à à à davantage euh, renforcer nos plateaux médicaux bañ di jëgaani des des soins donc ma leen di remercier di remercier le corps médical di remercier tous les Sénégalais di masawu di baalu ñi nga xam ne ñoom ñooy ma ma ma ma